ni melu mm. mm. waaw buur loolu li ma ciy sànni kàddu tënk lay doon rek mooy cat du wees mm-hmm. waaw te am na ñu wax ne dogalu yàlla bu amoon lu koy jiitu cat lay doon mm-hmm. te cat nag nee nañ bu la jàppee buñ lay njibarax buñ la fasee sax mu jàpp ku cat jàpp maanaam boo dee affiché wu tout le temps tout le temps ku ne di la tudd ay junni làmmi di la tudd maanaam ngir nit def la dara mu jàpp day yomb scientifiquement borom xam-xam yi dem nañ boo xam ne nit ñi li fekk tiitut jàqut dara jàpp ko kenn mënul ko dara. gaynde sax ne bu la songee bu bu fóonee sa température xam ne yaa ngi ànd ak sa sang froid day tourné waat mm-hmm. waaye bu la fóonee xam ne da ngaa tiit ci la lay jëfandikoo. kon ku mel ni soxna soosu Nabou Dash ñu ngi koy ñaanal yàlla loolu mu dem ba njortu ko ci boppam ne moo am su amee yàlla na ko yàlla wéral waaye nag ñuy lancer appel képp kuy mbokkam wala nga am di jàmbam na nga jug jàppale ko ndax kat daw ca ba nga ami tànk daa am yoo xamante ni ay signe de dépression la su ko nit ki commencé di amee suñ ko jàppalewul dana egg foo xam ne day naqaree faj <laughs> sëñ buur ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di wax baada aawuzu billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim di wax alhamdulilahi alquddus fi xaybi alhaahut almutajalla bil asma wa sifaat fi xadrati llaahut almaabudu fi aalami almalakut wa jabarut wa naasut wasalaatu wasalaamu ala man inbasarat fi haasi maratib alxams wa kullu man amana bihi min aljin wa ins sëñ buur ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu bi Prod Média di ñaanal yàlla nag chaîne bi mu dem ba nekk ay télévision ak i rajo ak lépp loo xamante ni ay plateforme la yu nit di mën a gëstoo wala mu ciy jànge te di leen ñaanal tawféexu yàlla yàlla na dëpp ci seen kaw ci barke sa yaakaar ji Serigne Mbacke Madiyana nga xamante ni ku ne xamoon na dayoom ci lislaam mm-hmm. nee nañ day ndekkee kaamil alquran soo ko génn kon yàlla yàlla taas ci barkeem

dëgg la waaw <laughs> waaw buur xam nga àdduna léeg dafay jaxasoo te dañuy wax ne du man dong bokk ma ci da koo gën a wóor mm-hmm. léeg nag yooyu mooy pousser nit ki nga ne xaaral ma toog sama ruq rek waaye nag da ngay dem ba dangay xamaat ne bu yëfi jaxasoo yow ci nga bokk mm-hmm. ndax bu fekkee dangaa ngaa xam te waxoo li alquran wax wa man yaktumu shahadat fa innahu asimu qalbu alxuraan dafa wax ne képp koo xam ne da ngaa nëbb ab seere kooku sa xol moom jàppal ne def nga bàkkaar parce que seede bi mooy lan bu dee lii ñuy wax xam nga ci dara te yow nga ne patt jàpp sa njàmbur keneen ku ñëw jaxase tool bi jàppal ne yow yaa ko may doole tey sunu sunu réew mi xam nga ne pëcc xoo gi ci wàllu sëriñ doy na war a damay wax ne li ko gën a yombal mooy média bu njëkkoon da ngay nekk sa biir ruq di liggéey yàlla ba nit ñi fekk si la di liggéey liggéey ba dëgër rek nga ne xaaral ma dem xool média bi rek wax ci mm. ah, su ko defee nag loolu dafay yàq lu bëree bëree bëri te lii ñu nekk nii xam-xam la buur xam-xam des koy jàng mm-hmm. tey nii nga amee métier mu nga nekk journaliste xam lu bëree bëri ci sa métier moo la eggale fii nga egg tey mm-hmm. caméraman bi kazalika mm-hmm. tëbul tëb rek jël caméra bi dama koy faral di wax nee naa leen tey bu defee nii xam na pixel yi ni muy doxee xam na nuy luy zoom xam na luy lumière xam na luy nangam ak nangam mm. man boo ma ko joxoon du dem mm. du sama métier mm. kon nit ku nekk li nga xamante ne mooy sa métier na ko tarbiyu tarbiyu goo xamante ne lépp lu mu laaj muy élément yoo xamante ne mooy tax sa métier dox na nga ci nekk. lan mooy mm-hmm. mm-hmm. buuru. Euh, ijaaba de ñun ñu ngi koy sàkkoo ci ñett te jàpp naa ne lu ma am ci loolu laa ko amee benn bi mooy jàng alquran man sama mbirib alquran la waxtu wu nekk su ma amee diir bu gàtt bu ma amee jot maa ngi ci waqaf alquran beneen bi mooy salaatu na bi mu julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam beneen bi mooy jàng xasida Sëñ Tuubaa ci loolu laa nekk la ma cee toftalaat nag mooy yor naa aw tur yàlla di ko liggéey te yàkkamtiwuma ci dara nag te ku xam ismu jalaal xam ne mën na lu ne mm-hmm. waaw tey bokk na sunu fas yi ñu war doonte sax du ay teggin ñu koy wax mm-hmm. waaye nag dafam loo xam ne dafa mat leeral la mm-hmm. ba ca des nag bu ñu génnee mbirum xam-xam mooy jëflante ak jaamu yàlla yi jëflante bu rafet ndax dañuy wax ne jaamu yàlla ci biir jaami yàlla yi mu noonu ndax yàlla mënoo ko defal dara ba mu saf ko dana wax ne boroom boutique la mu gën a fonk mooy marchandise yàlla nag nit ñi ñooy marchandise soo defee ci ñoom la rafet mu fay la ko soo defee ci ñoom safaan tamit danga ko gis mooy la alquran wan man amila saalihan fale li si wa man asa fa alayha yàlla moom dafa juste yàlla mooy ki nga xam ne moo gën a juste maanaam du par par loo def dara moom loo def rek mu fay la ko. jëflante mhm. waaw loolu sëñ buur jamono jii nag ci la rawee est-ce que xam nga ne bàmmeel yaa ngi màbb di pëtëx ngir ay liggéey ñu fay suul. Mhm. léeg-léeg nga dem ci biir armeel fekk fa bàmmeel bu bees tàq mu màbb fekk du dara nit a fa ñëw ci saa si gas suul bari na ministre yooyu dégg tey jii. ñu fay kenn déggatu leen yii ñu wàccee ci seen i poste yoo xamante ni sans raison directeur yu ñu dàq ku tas ci see mu amoon fa jàmm lool mi ngi ci biir bopp néew bu bees tàq ñu suul te caaxaan dindiwu la fa bëri na ko am jàmm di liggéey liggéeyam di dox nga jékki-jékki déggatoo ko fenn fenn fenn li ko waral mooy liggéey bu bon kon kaaraange dafa mat ut dinaa leen wax nag ñaari kaaraange yoo xamante ni mag ñi fonk nañ ko lool lool lool lool buur am na ci borom tafsir yi wax ne ñoom suratul falaq ak suratul naas boole woon ko ci alxuraan mm-hmm. ngir lan yàlla da ko wàccoon uniquement rek pour protection <laughs> ñoom noonu lañ gisee waaw falaq ak naas mën na lu ne ci àdduna waaye ana nañ koy liggéey buur falaq yi juróomi laaya la naasi juróom-benn laaya la 5 plus 6 lu mu doon du 11. 11 dafay delluwaat ci tur yàlla boobu ñoo huwa waaw aha la waaw 6 la ha mooy falaqi waaw mooy naasi huwa mooy kan mooy yàlla moo tax xoolal ci biir bi ñu waxee xul dañ na huwa allahu <laughs> ku xam nag dëgg-dëgg. loola dafay delluwaat ci fukki lettre yi composé jalaal ak benn muy onze lettres ismu jalaal muy ahamu saqaku xalaaw yesu muy 644 mu jàpp ruux ak nafs doomu aadama loolu dong la léegi nag sirul kaw ni mooy adadul xalaayiqi mooy abajada boo ko jëlee ba mu jeex nga calculer ko dalay jox cinq mille neuf cent quatre-vingt-quinze ba ca ba ca yaaja bu la neexee nga tàmbalee ci alif ba ca sin tamit bu dee da ngaa jël ab ab abatasa wala nga jël abajada boo ci jël baax na waaye looñu ci mën di doon araf yi day nekk cinq mille neuf cent quatre-vingt-quinze buur cinq mille neuf cent quatre-vingt-quinze lu doy waar la cinq mille neuf cent quatre-vingt-quinze yooyu boo ko divisé par onze yi ma la doon jàngal ci huwa moo lay jox cinq cent quarante-cinq cinq quatre cinq gis nga ñetti chiffres yooyu ni mu doyee waar ñaari cinq yi moom moo ëmb quatre bi ci diggante bi cinq cent quarante cinq boobu mooy lan boo jëlee baatu kursi ci al ci ci ci ci ci ayatul kursi yu yaa gi dafa am sadda da nga koy jël ñaari yoon moo la jox cinq cent quarante cinq nga ko ci huwa mu joxaat la abdalul xalaayiq nga jëlaat tur yàlla bi di xannaanu nga xam ne ñu mbiri xamuñu ko cent neuf la lay jox nga multiplier ko par cinq mu jox la cinq cent quarante cinq nga darbu ko ci huwa mu joxaat la loolu nga dem jël ci li ñëpp di wër muy al amwaal muy xaalis muy alal al amwaal boo ko xoolee 109 la boo ko darboo 5 mu joxaat la 545 nga multiplié ko par 11 mu joxaat la loolu 5995 yooyu nag la ñuy jël rabbale ko ak jalaal muy 644 mu jox la 6639 kooku la ñuy liggéey mu rabba ak fallaxe ak naasi buur ku yàlla bind ci kaw suuf mënu laa liggéey mu jàpp la buñ ko liggéeyee ba noppi nag ñeenti tabia ñoo am suuf sawara ndox ngelaw dañuy def ñeenti téere ak ñeenti càngat bee géej ngay dem sangu sànni bii taxaw ci kaw suuf sangu sànni bii taxaw ci kaw garab sangu sànni ban moo la dese euh, sawara nga baxal ba mu bax sànni boo paree sangoo ma ne loolu la ñuy wax belende kooku boo ko xasee def sa yaram kenn du la liggéey mu jàpp la kenn bu la neexee tëddal bu nit kenn mënu laa kenn mënu laa pexel li gën a yem mooy boo koy sangoo ku lay fexel da koy gis waaw wala nga tëdd ci biir nelaw nga gént xam ne kii moo may fexel foofu nag dinaa fa jàngal nit ñi benn affaire saa boo tegalee nit koo xam di ko gént di ko gént di ko gént defal attention ci ko mm-hmm. xamal mi ngi sa kaw mm-hmm. borom bagage dëgg day gént mm-hmm. léegi nag loolu mooy waral yu mel nii mat a xam beneen bi mooy suratu tawba waaw saar bu amul bisimilah rahmaani rahim bara atu minallahi wa rasuli baala tàmbalee baala tàmbalee waaye lu mu jeexee bu ne laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhim ma anitum xarisun alaykum bil mu'mina raufun rahim fa in tawallaw fa qul xasbiya allahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu rabbul arshil azim miim la jeexee siin a ngi seen diggante mag ñi dañ daan wax baa ci kaw siin ci suuf miim ci diggante bi boo ko waxee boo xëyee ni cëpp say tànk ci suuf kenn mënu laa def dara lu jàpp <laughs> buur sóoratu taw ba muy baraatun la nit di jëfandikoo ay noonam di deebar benn benn li ma lay wax ni amul ay amul jabar amul doom amul kenn sóoratu taw ba la liggéeyal nit mu yor ko di ko jëfandikoo ku ko bañ de ku ko dama ne la wax ma egg eggul ci fexe boo bañee rek dee. Mhm. dëgg la wala dëgg la ndax dëgg la. dëgg la nit ñi buñ la bëggee mhm. buur yaa ngi wax la am solo. Mhm. léegi sëñ Tuubaa daan na dajale njabootam ne na ngeen wuti bayra daan la wax da ngeen wuti bayra ngir dana tax nga yilif ki nga war a yilif waaye ñàkk bayra dana tax. nga ñàkk yilif koo waroon a yilif dégg wax jëm buur ñàkk bayre dana tax nga yor nit war koo yilif ba pare mu lànk ne doo ko yilif te loolu gën a métti amul bayre ak ubbeeku nag coow li da cee buur sama ruq bi ku fi dugg ma sang la boo wa wal ba bañaa yow nga ci nga ci nga ciy laal dañoo bëgg télé bii dañoo bëgg télé bii télé bii dañoo bëgg mu jëm ca kanam waaw dama wallaay day day am waaw day am gis nga wàllu ibbiku ak kaaraange ak ak bayre buur dama lay wax ñetti saar yoo xamante ne ku ko fi bàyyi di uti ubbiku doo ko am hmm. man maa la wax li man nee ma benn bi mooy ban soosu fatxi inna fataxnaa laka fatxan mubiinan force amul ma dem te ñëw <laughs> gis nga suratul Fath am na nuñ koy bindee xam nga ñu bëri dama leen dégg ci internet bi. génn <laughs> hmm. góor hmm. hmm. dëgg la. ci moom laa mës a ñëw. mu ne ma képp kuy liggéey ubbeeku. te munu ko liggéey ci naan fattax waaw. wallaay dalay nax loolu wér na. sëñ bi sëñ bi naa man dëggal naa dëggal naa sa maanaam sa xam. dama la ciy wax lu tax mu ibbi. jalal la mu jalal la jalal muy doxal kawnu bi xam nga naa naa fattax inna fatahnaa laka bii mubiinan dafa nekk ci adat 1233 ñu ko wax 1233. jalal dafa am ñetti lim yu ñu ko xamee 11. 111 1111 soo jëlee onze mille 111 1111 moo la jox 1233 am na turu ko jàpp ñu ko wax akakun lalu tam-tam jakk hosin nga xam ne bu ma la ko joxoon ñetti weer ñetti weer nga koy liggéey day mujj di war buur ci dëkk bi duñ ko mën a gis ndax dootul tal kenn wallahi lazim su ko defee naa fattax naa la ka fataxat mu bind da ngay dégg nag ñu bëree bari di ko wax da ngay bind aaya bi 489 boo ñëwee wa yansurakallaah nga bind ko 818 eggali saar bi yem fa xamuñu caabi ji dama wax ni ku dem Tiwaawan xam ne li may wax am na ku daan fréquenté sëñ Mansour si xam ne li may wax am na daa yoroon caabi ji di tijji ne la foofa dafa am fu ñu gagee surtout sarax yi mooy caabi ji muy alam nasrax waaw moom mooy mbir mi foofu nag du fa egg ndax gars yi dañooy pirate waaye waaw su gis nga gis nga buuru ko weesu suratul fatxi nee na wan saar mooy demal ci ministre de finance muy suratul waaqia kooku nee nañ ku ko fi bàyyi doom wërsëg bis naa ci mbind mu jóge ci ku tedd ki mu ne kuy def laa ilaha illallah junni suba laa ilaha illallah junni ngoon suratul waaqia juróom-ñaari yoon da dem ba dootoo xam sa alal nu muy toll te ko waxam radiyallahu taala waxam du tuxu buur kooku rek laa gëm. wallaay laazim waxam du tuxu waaw kooku dafa wax ne yàlla daf ma sepp ci biir bindee fi kooku kooku kooku kooku keneen la nañ ko génne foofu sax ñu dugg ci yeneen su ko defee ñetteeri saar bi imam Ghazali dafa ne yéem naa ci kiy wut wërsëg bàyyi fi alam nasrax li muy gàtt gàtt. allahu akbar buur alam nasrah li mu mën gisuma saar wu ko mën si ubbi. ak ni mu gàttee noonu sëñ alam nashrah laka sadraka wa wadaana anka wizraka allazi anqada zahraka wa rafaana laka zikraka fa inna ma al usri yusran inna ma al usri yusran fa iza faraxta fansab wa ila rabbika farxab yomb yomb rek wallahi lazim ah, ah buur keefam yooyu alam nashrah laka sadraka fa la yëfi nekk kan la yàlla di waxal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga yàlla dafa saalum saalum yi dañuy wax ne aajo fay nuroog xaaya noonu lañ koy waxee ñoom <laughs> aajo day nuroog aaya waaye buur buur nag dañuy waxante dëgg xanaa man su ma ne woon France laa bëgg a jëm buur hmm. am na melokaan boo xam ne ba ma ci gisee am yoon wu ma jël di nga xam ne man dew ma France

isa samaan saqat buur mag ñi lépp lañ fi bàyyi ndono laa fi ba tey dafa gi dafa jot nag ngir ñu wax waaw dafa jot te tey jii nag damaa bëgg wax waxaguma de dama bëgg a wax <laughs> waaw daaw ma wax nag mais damaa xam ne wax jot na ah, waaw waaw wa waaw waaw buur buur seen jiw. buur da ngay kilifa. seen jiw buur seen jiw. waaw newoon naa leen dinaa indi bese ju jot. Mhm. kii annoncé woon naa. dëgg la dinaa indi borom xam-xam. la wax kii bëggut a feeñ. kii bu bu yoonam nekkul ci internet waaye tey dafa jot sëñ Malick feeñ si na kii. Mhm. <laughs> dama ni kuñ xam nga dëgg la. loolu wér. dëgg la. kuñ ñi xam nga. te bindagoo. xamagoo. Mhm. kii. Serigne mhm. mhm. Mhm. mbind maa ngi. buur mbind maa ngi nii kii mooy kitaabu majmuatu shajaratu Touba li taalimu ulumul asrar muy téeméeri xët ak fanweer ak juróom-benn 136 pages. di wax ci wàllu asrar. kese. wàllu ilmul asraar asraar nga xam ne sëriñ bu ko am da ngay tàkk force. kon ñu naan boo foto sa buur ñu naan asraar maa ko mën maa ko xam. waa léegi bu ko mënee kay bind leen lu bind rek borom xam-xam day bind. lii sëñ Malick Guèye ko bind. waaw ci wàllu ilmu. asraar mm-hmm. mm-hmm. wax la yow yaay kan. Mm-hmm. wala aaju ko jar dëgg. sëñ bi tëju. ci wallaahi laazim wallaahi amul ma dem te ñëw mhm. mhm. wallaahi buur buur téere bi danañ ci gën a wax mhm. dangaa dugg sànq fa am solo muy ku bëgg a yilif xam nga jaani ñàngoor suñu waxtaan wi li muy neex neex bu duggoon fii léegi tey mën ak yow ñu xool fu ñu jaar gis nga isa samaan saqat am na nu koy liggéey ba noppi jël boppi jaani ñàngoor lakk ko ba mu doon dóom def ko ci nga sangoo ko buur léeg-léeg nga gis nit koo xam ne fu mu dugg nit ñi ragal ko da ngay xam ne moom ñëw na ci yotaay bi du caaxaan ismu jalal muy ahamu ko xala yesu am na lu la koy liggéeye ci limu onze mil cent onze

fa in lam tafaalu walan tafaalu alxuraan moo ko wax jalaal bu ñu dëpp muy suyaaw laxa ko xasamuha ku ko xam kenn du la tëj ci prison dama ne la bu ñu la ko liggéeyalee suyaaw laxa ko xasamuha ren di béy bu ñuul def ca lañ cay def demal nga wuy ji juge bu la tëj dee dama ne la juge bu la tëj dee man maa la wax lii ku rep rek juge bu moo lay àtte di la tëj. gis nga wàllu kayit. te xam. nga buur nit ñi ne da nga bëgg ku leen nax. Mhm. seen i Cheikh Ahmad Tidiane si radiyallahu taala daan wax ne nit ñi da leen di yee ñu soppaliku njëgënaay di nelaw ci sa kaw. xam nga naxa bi dafa bari lii may lii may wax nii dafa nekk loo xam lu wér la muy xam-xam mhm. bu tegoo ci yoon maanaam buur su ma jugee sellal yow miy jëm ci man sellal yàlla day nangu mais boo jugee pour naxe man ma jugee pour naxe yàlla day ciy maandu moo waral lu bëri ñu koy ñaan mënatu la am dëgg la mënoo xam am na ñoo xam ne sëriñ soo ne xamuñu sax luy séjour xamuñu luy luy kayit pour ñoom kayit danga koy dox ci benn fan ñaari fan mu sotti naan la benn fan benn fan loolu amul du dëgg mm-hmm. déedéet da nga koy ñaanal mu topp procédure ba normal bi ba jot ay kayitam waaye kenn du wax ne dama lay ñaanal ci bis bi nga jot say kayit xam nga sëriñ yu bëri voyagé wuñ nag. waaw waaw amu amuñu sax passeport. waaw. di la whatsapp man yàlla dafa ma dimbali fii nga ma fekk nii. Mhm. sama kërug bopp la maa ko moom. fii ma dëkk daw ma kenn fekk ma fenn 98 ba léegi maa ngi kër may Fall gi mosuma koo génn. Mhm. maa ngi fii bougé wu ma aw ma secrétaire. Mm-hmm. sama téléphone yii maa koy wuur sama bopp. Mm-hmm. sama programme nag laa leen di xamal man à part de midi laa jël téléphone. midi parce que damay fanaane liggéey ba bët set wicc waxtu woo laay dallu tuuti midi laa jël téléphone. Mm-hmm. am na numéro fixe nag boo xamante ni dinaa la ko jox. ku ci woote boo jëlee rendez-vous da ma jot. mu ngi ci biir kër gi waa kër gi lay wuyu samay soxnaa lay wuyu man amuma ay dugg génn. ku ma woo tamit boo ma jotul boo bàyyi message whatsapp bu ma jugee dama lay woo. danaa la répondre waaw man aw kii boobu. sëñ bi daj dëpp gi. waaw. du defe naa temps bi waaye waxtaan wi ko mhm. a nax bi <laughs> ngóor waaw dëbb di ko jox buur damay damaa bëgg balaa ñu wax ci ci ngóor bi. Mhm. sànq da dugg fa am solo muy sarax. sarax waaw sarax. xam foofa dafa am lu ko jiitu muy seet. seet ay génne sarax. xam nga sa xam sànq yaa ngi koy wax gaa yi ne joxeel sa loxo. joxeel joxeel sa sa faas. dañuy fontu xam-xam kenn du ko kenn du ko fontoo. Mm-hmm. seet danga koy mën ci ñetti anam. Mm-hmm. liggéey rawxaan ba mu ànd ak yow. Mm-hmm. di la xibaar te doo ko ko laaj. loolu yaakaar naa bu yaakaar naa dina ko def. Jalaal dina ko def. maliku jawaas dina ko def ba raw xaan doo ko laaj sax dangay toog fii mu ne la buur a ngi ñëw léegi mu egsi bu ñëwee nangama nekk ci poosam mag ñi dañ ko daan def loolu am na beneen bi mooy ilmu ramli nga xam ne dañ koo yombal a yombal ba nga xamante ni maritaale koo wax mu ne ramli am na si ñoo xam ne xamaguñu sax nu ñuy tëralee ramli ba bay xam lu muy li ñuy li ñuy interprété tëral bi dong laa wax boo boo leen tegoon fii ñu def examen dañuy faussé du ñu tëral ramli da ngay jàng tëral ci ñeenti ligne quatre fois quatre seize nga taxawal seize boobu noonu mooy juraat seize doom ya tàmbalee ci Yuusuf di benn kër Aadama di ñaar ñetti di Mahdiyu nga wàcc ba ci Muusa kër gu nekk di wax baytu xayaat nafsu kasb banaat ummahaat farash marat baytul may mawt baytul farash mawt ak baytul euh, safar mooy tukki gi. waaw kër yi nga ñëw nga ñëw ci baytul aada nga ñëw ci baytu yaakaar raja nga jóge foofu Souleymane baytul mulk ñëw saail masul nga ñëw ci aaxiba aaxibatul aaxiba benn doom bu nekk am na fukki firin ak juróom-benn yu bokkul. 16 firin. 16 yooyu bokk multiplié par 16 moo la jox 256 256 mooy nuuru mooy leeru yàlla. day delluwaat ci baa bas ma u basmala basmala baa la nga def 2 fois 2 égale 4. 4 hmm. fois 4 16 16 fois 16 256. nga xam ne moom la ñuy jël dara bu ko ci kun muy 70 muy 17 920 ñu dolliwaat ca 2 ca kaw mi baa muy 17 922 di turu yàlla bu mag boo xam ne gars duñ ko wax muy baa bi say say xara si saq si du ma eggale fa laay yem nga xam ne mag ñëpp dañ koo toogee woon seen kër yi ba mu tàkk boo demee Tiwaawoon taal nañ ko nga dem Touba Ndiassane nga dem Limamoulaye nga dem Niassène li may wax nii xam nañ ne mooy xaqiqatu Fatiha taxawaat ci xayun xayumun 174 nga jël ko darbu ko ci 103 alam nasrah mu joxaat la loolu nga jógee foofu daal di dalaat ci ukuluha daa imun mooy lekkam gi yàlla moo ko yor mu fixe nga mu multiplié ko ci xayun xayum mu joxaat la ko kenn du ko liggéey di ñàkk dépense da ngay dundal ay junniy nit da nga leen dundal buur kër yaa ngi tas li nga wax dëgg la. kër yaa buur.

kii boo ko jëlee lem ngay jël original nga boole kook moom denc lem mooy meilleur conservateur mm-hmm. lu mu àndal du yàqu mm-hmm. te lem ci boppam mooy benn produit bi nga xam ne dagale na lu mag juróom-ñeent fukki garab ak juróom-ñeent yàmb lekk na ko mm-hmm. produire ko def ci loo xamante ne dootul yàqu bi laay mu diine boo xëyee à jeune suba teel garab gi boo ko jël buur da ngay sawar waxuma la sax ay ay ay ngóor waaye da sawar sa yaram day dëgër. boo xëyee rek tibbal kudd rek jàllale boo tibbee kudd jàllale bàyyi noonu 30 minutes nga soog a ndékki da xiif sax da ngay sant da ngay xiifee. Mhm. bu ngoonee balaa ngaa tëdd ñaari waxtu avant ngay tëdd nga jëlaat ko jël ko ñetti fan yoo xam ne bu fexeel ba privé sa bopp lal bi tuuti ñetti fan rek. trois jours trois jours. doo ko laal ba mu dugg sa biir yaram. soo paree upp mbir wallaahi la buur da nga mel ni fasu gursu. <laughs> <laughs> kii da ci ciy yóbbaale. téere bi nag 7500 lay wecc ko. 7500 maanaam ak juróomi téeméer xam-xam yi ci nekk nag amul kenn amul njëgam. Mhm. kenn ko amul njëgam amul. gis nga yii ma doon wax sànq. Mhm. balaa may tëj gis nga mbind mi buur du caaxaan. suratul fatxi la moom laa doon wax. Mhm. waaye kii ñu ngi ko liggéey ci alam nasrah zuyna inna haza gis nga mimi lépp dañ ko ibbi buñ paree am na ay tobb yu muy àndal ak ay parfum yoo xamante ni. bu bu la buur kii la ñuy wax Odu Kambodi. Odu Kambodi. doo gis benn sëriñ bu la koy génneel fii maa leen defee ñoom yëpp nag. sëñ kilo bi treize millions lay jar moom lañuy ñuy wax or noir. waaw <laughs> xalwata ko tax a jóg. buur même kii naa la ci may nga yóbbu dammal tuuti di suuru nga xool da ngay ibbeeku par force. kilo bi égal 13 millions moom lañ ko or noir. xaaral ma wut man waaw moom la wax boîte amee am na ñu koy wax boîte d'argan waaw amee naa fi <laughs> mu ngi noonu. te dox de léppay dox bu soobee yàlla. wallaahi laajim te di nga yóbbaale yeneen nag. te li ma la wax nii. da nga gis télé bi day yokk insha allahu taala loolu yàlla moo ne qulillahu malikal mulk tuutil mulka man tasa wa tanziul mulka man tasa wa tuizzu man tasa wa tuzillu man tasa bi yadika xay innaka ala kulli shay'in qadir barke aaya boobu yàlla na yàlla dal la barke sëñ Tuubaa kon nag ñu tàggatoo ñëwaat dañuy ñëwaat waaw dañuy ñëwaat ndax damay bëgg waaw chaque weekend mhm. sëñ bi def benn cours magistral wallaay da ngay ñëwaat ñu teg tableau bi. ñu teg tableau bi. waaw dama de la diaspora. ñoom mhm. mhm. mhm. ba ci ba ci Afrique bu ñuul bi. nañ mosuñu ko gis. te xam-xam rek la waxtaanee. mbokk yi kon dañuy wax tàggatoo bu tàggatoo. tàggatoo. di wax in uridu ila al islah mastataatu wa ma tawfiqi ila billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.